ma njëkk laa wax weeru koor yoolam ak darajaam soog laa xamal besam ba ma wax weeru koor yoolam ak darajaam soog laa xamal besam bur yàlla ne bind na am malaayika ma aras day woor bëccëgu woor guddi ga salaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di am mbégte ak kontante bu ci bàyyi xel gi ngeen ñuy bàyyi xel indi leen seen émission yóbbalu weeru koor ci wàllu naafila yi bu guddeeg ñaar fukki fan gi ak benn maanaam bu ñu wooree ñaar fukki fan ba dog jot li ñu war a naafila bu ñu demee ca xuratul ayni bu yi bu Mbàkke nañ fa fekk ñu war a naafila ñeenti rakka rakka bu nekk dinañ jàng faatixa benn yoon xul uwallahu ahad ñaar fukki yoon loolu nag ku ko def bari na ay tiyaabo yu ci nekk sëriñ bi nee na ku ko def mel na ni ku moom lépp li nga xam ne moo nekk ci kaw suuf ba pare jëlaat lépp joxe ko ci yoonu yàlla mel na ni ku jàng suñu téere yi tawret injil ak sabur ak alxuraanul karim te buy buy génn àdduna yàlla dina ko faxasal ay bàkkaaram bu mu mel na mu fi dellu see woon maanaam ba mu mel na mu doon meloon ba muy gànnu si àdduna mbokk yi ku ci bëgg am yeneen i leeral te nga abonné suñu page Facebook YouTube Rayfan TV bul faté ba skolos notification bi ndax nga am suñu programme yi ñu leen di indil alaykum wa rahmatulah. rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa mawala laqi lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu dakiran wa shaakiran nasaluka albirra maha taqwa wa ma tarda min al amali ya rabb sama bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi ñuy topp ci seen site bii di Refane TV ñu ngi leen di nuyuwaat fi ñu leen baaxoo nuyoo di leen ziyaara di delsiwaat ak yéen ci seen jataay bii di yóbbalu koor ngeen koy am bés bu nekk ci waxtu wi tey di suñu ñaar fukkeelu fan ci weer wi ñu toll ci waxtaane yi ñu sopp ci koor bokk na ci yi ñu sopp ci koor mooy jàng alquran baril jàng alquran ndax alquran weeru koor mooy anniversaire ci la ko yàlla wàcce kon weer wu ñu ko war di bari luñ koy jàng la ndax suñu boroom moo wax ci alquran ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran ci wéeru koor ci lañu wàcc alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda wal furqan alquran nek ak njub ñeel mboolem nit ñi ñëw itam di leeral li deg bogg ngir ak ay fen dëgg ak i alquran ko teqale moo tax sax furqaan loolu lay tekki mooy li teqale diggante dëgg ak i muy téere boo xam yaa ngi jaamu yàlla jaamu yàlla gi gën ci jaamu yàlla yi boo koy xool yaa ngi jaamu yàlla boo koy déglu yaa ngi jaamu yàlla loo ciy def rekk ak jaamu yàlla gu mag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kiy jàng alquran waxuñu baat bu mu jàng waxuñu aaya bu mu jàng waxuñu saar bu mu jàng waxuñu xisib bu mu jàng waxuñu kaamil bu mu jàng bay xatmu waaye xaraf bu mu jàng rek suñu boroom bindal na ko ci fukki tiyaabu fukki tiyaabu daal wax ne waxuma alif laam miim ne xaraf la waaye alif gi dañ la ciy bindal fukki tiyaabu laam gi ñu bindal la ci fukki tiyaabu miim gi ñu bindal la ci fukki loolu nag bu dee ci weeru koor dañ koy ful ndax weer wi lépp promotion la kon ki wor di jang alquran na xamne mu ngi dundal koram mu ngi dundal koram lolou motax alquranul karim di téré bo xamne ni wéru koor nek sangi wér yépp noni la alquran nek sangu mboolem téré yi motax yalla tanal ko wér wi bim ko wàccee ci yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi daan ko jàng ci biir weeru koor wi rawatina sax ci fan yu mujj yi nga xam ne fan yu mujj yi da ko daan jàng léeg-léeg mu di ko naafilaa di yee mboolem waa këram taxaw jiite leen di naafilaa alquranul karim moo tax boo demee ci dëkki diine yu mag yi fu mel ni Tuuba makkatal mukarram ay madinatul munawwar ay daarul mu'ti ay jurbel muy njaareem ak jumaa yu bari kaamilu alquran la ñuy naafilaa ci biir weeru koor wi yépp nga xam ne bés bu nekk ñaari xisbi alquran ak nisif lañuy jàng naafilaa ko bu weer wi di jeex ñu xat mu seenu kaamil loolu mooy dundal weer wi ci alquran ñeneen ñi bari itam ci rajo yi ak yenn média yi muy télé yeeg yenn sit internet yi ñoom itam dañuy wutal pàcc bu yaatu alquran alkarim ci weer wi ñi di ko tafsir ñi di ko jang, ñi di ci def ay musabaqa muy ay jongante ci alquran loolu lepp bok na ci dundal weer bi ci alquran ndax weer wi di sahur ramadan moy anniversaire Al alquran ñeneen ñi sax du ci dajale gone yi mon alquran ñu di ko jang, ñu di leen ci jox ay neexal yu am solo loolu yépp bokk na ci dundale ko weer wi koo xam ne nag mënoo koo jàng war nga ko mën di déglu donte da ngay am son yoo xam ne alquran la nga di ko euh, taal di ko déglu wala sax ngay bégal ñi jàng alquran ndax loolu yépp ci dundal weer wi la bokk kon suñu jataay tey foofu la yem ñu ngi leen di tàggu di leen jaajëfal ci ànd gi euh, di leen dig daje ba subaak jàmm inshallah ci beneen jataay wasalaamu aleykum wa rahmatullah ma njëkk laa wax weeru koor yoolam ba ak darajaam soog xamal besam bur yàlla ne bind na malaayika ma aras day woor bëccëgu woor guddi ga